محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di nuyu ak ziyaara sunu xalifa Seydi Mouhamadul Muxtaar di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak weex di ñaanal mboolem ahlu beyti imaam Allah bi yëpp di amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen ñi nga xam te ne yéen yéen ñuy suivre sunu seen YouTube di Layen Éclairage Sono waaye di amaan mbégte dalalaat fi ndaanaan dalalaat fi koo xamante ne macha allah. di soppe di xarit di ko bàyyi mu nuyoog mbokki internet yi kay suivre salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Oumy ñu ngi lay giar bu baax di la nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu waaye di sant yàlla di julli si yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla nu ko yàlla fayal. di ñaanal aussi sunu xalifa. Seydi Mouhamadou Mukhtar yàlla bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ki nga xam ne moo fi jóge bu yàggul te duñu ko fàtte muy Seydina Baye Abdoulaye yàlla yokkal ñu ay leeram taas ñu si barke mboolem ahlu bayti Seydina Limaamu Gine sa barsax yëpp yàlla yàlla taas ñu seen barke ñaan yàlla yokk seeni leer di la bu baax a allah yàlla yàlla nangu ñaan yëpp waaye weetuñu si benn yoon ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy soxna maam Ramalaay di ko bàyyi mu nuyoog mbokki internet yi ngay suivre. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp suñu yi xarit mbokk yi suñu mbokki internet yi ñuy suivre ci Line Éclairage sunu ñu ngi nuyoo ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal euh, suñu soppe ba suñu xarit ba Seydina El Hadj Baye Abdoulaye yal na yàlla yokk koy leer mm. di ñaanal rakkam ji fi uuta si jal bi yal na yéen bi oyof ñu kàttanal ko jubbalal ko njaboot gi taalibe yëpp di leen ziar di ziar euh, sama jëkkër ji ma bokk plateau yi muy Iba ak yow soxna Oumy Laye di sama rakk ñu ngi ziar ñëpp laay maxtaar di leen ñaanal jàmm xewal sutura teraanga barke Madio Gissa macha allah macha allah ni yooyu am na solo waaye di waajal 142e euh, appel de Seydina Limamou Laye ñuy euh, Layeen éclairage sunu indi leen lu bees sax di cent pour cent Zikroullah tey nag ñu dalal fi ndaanaan macha allah boo xamante ne fu mu yuuxoo rek ñëpp bekk bég ñëpp a kontaan Iba ñuy waajal appel naka nga koy waajee. waa ñu ngi sant yàlla bu baax appel bi moom yaakaar naa ne ñu ngi si di ko waaj comme ni mu waree ne defe naa ren dafay sax waajtaay bi dafay xaw a wuute lool ak yi yi paase ndax ku toog ñaari at yoo xamante ne loo mësul xalaat. Hmm. ne di nga toog ñaari yoo xam ne doo célébrer wooteef Seydina Ali Muhammad alayhi salaam bi ku la waxoon doo nag ak i ñu nangu dogal bi lool ba yàlla dogalaat ren gi ñu koy waaj li si des ay fan bëreetul ñu ngi si di ko waaj si anam bi nga xamante ne ñun xëy na tàggakatu Rasulullah yi ni ñu xëy na ni ñu yàlla natoo muy di tagg yonente bi alayhi ñu ngi si côté boobu di ko waaj waaye di ko waaj aussi si dalal gi ñu fas yéene dalal gan yi naka ngeen di dalale gan waaw dañuy di ñaan yàlla rek comme ni ñu am ay gan moom adina mhm. di sëñ Ablaay daan wax ne adina boo si nekkee del ñaan yàlla di may mu lay may xaalis na xaalis mhm. jar na ñaan mhm. waaw ndax boo amul xaalis moom lu bari def lay te mais ñu ngi ñaan yàlla mu dooti ay xéewal ba nu mën dalal gan yi si anam bi ñu ko bëggee waaye aussi dalal leen si tawxiit dalal leen si lépp loo xamante ne def leen di bégal daal lépp luñ si man ñu ngi koy ñaan yàlla mu mënal ñu ko ba ñu mën ko def. ma dégg la sa ay kàddu léegi nga ren bi wattaayu ren bi lan la nar a ñun suñu côté bëgg nañ bégal lool ñi nga xamante ne ñooy julliti yàlla rawatina axlulaay rawatina suñuy soppe ndaxte yàgg na lu paase ñuy def ay album mais albom dañuy ñaan yàlla ñun album bu ñu def bii di ñëw gën ko euh, gën a raw bi nga xamante ne moom la ñu def année passée ndax macha allah album yi ñu def yëpp bu génnee ñi ñi ñoom ñooy apprécier mm-hmm. amaana ba ñi koy déglu ñëpp kontaan nañu si liñ leen doon defal waaye bii nii ñun ñi nga xamante ne ñoo ko def am nañ si yaxin daal que ne bu génnee dina dina dina neex lool si axlulaay bi yëpp ndax jaar nañu si beneen anam defee ko neneen noo xamante ne bëgg nañ bu bu ko ñëpp déggee mu doon lu am fasaaxa si seeni noppa waaye itam doon lu neex itam si seeni xol loolu daal ñaan nañ ko yàlla bu ba ba defe naa yàggatul incha allah euh, le 24 bi muy jeudi war nañ war nañ ko commencé distribuer Euh, defe naa dinañ am une semaine avant appel ak ay fan. bu ma la déggee say kàddu am na looy wàcc appel bi. am na lu ñuy waaj muy album. album bi nag ñun du pour ñun pour pour pour julliti yàlla yi la rawatina waa axlulaay nga xam te ne ñoom ñooy waajal appel bi muy wooteeb Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ndax boo xoolee am nañ si huit titres si album bi huit titres yi dañu koy ubbee. buntu woote bi nga xamante ne moom la Seydina Ali Maamu taxaw woote ko waaye sunu maam Muhammadu Mbuub di xaarixu bindoon ko bàyyi fi wax ci Seydina Ali Maamu anam bi mu waajalee bi muy bi ko boromam di yónni ba ni mu wootee waaye teg si tawxiid boo xamante ne itam xëy na moom lañu ñu fi Seydina Ali Maamu bàyyi daal di départ nag si moom tagg ka ak njabootam gi yëpp. if ba ñu ne 100% euh, Zikroullah mm. tey lan kay may euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu suivre si suñu seen YouTube di Layane Éclairage National. waaw li ñu fi bàyyi lay bàyyi dem bu ñu leen ko joxee xëy na dina tooy seeni xol ndax Seydina Limaamu Laay salaatu wasalaam moom Zikroullah comme ni ngeen ko waxee. moom la ñu fi bàyyi. Mm-hmm. waaw loolu de xëy na buñ koy buñ leen ko joxee. Mm-hmm. amaana mu dugg si seeni xol te yàlla na yàlla def si barke bàyyi lay mm-hmm. ba mu jege. dina dal nafa ngor mawlid yoofin waaw waaw ba mu feeñee dani may ma di yu kay bir nafa buur ba Abdoulaay Jaw nee li nga doon wax ku ka masa wax ndeysaan di nga daw ma di nga sànko fi dul yow na nga tanu xam kan tanu buur ba maam li maamu laay ay muxtaar waaw waaw yaay maxmood yaay mansoor fegu soo daan din yaa fi woote sunu buur ba Abdoulaye di yoofin ba mu feeñee tani may ma dellu kay biir ma fa duufa illa la la ilaha illa saxir la eh, ilaha illa la la ilaha illa la خير الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأهل سام لا إله إلا الله لا إله إلا الله baatu tawxiid baatu lixlaas loolu mooy baatu laa ilaaha illallaah gëm xayrul anaam laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah

لا لا لا تخونا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيدنا الإمام لاي فقال إني رسول الله أرسلني إلى الإمام ليعبدوه باليمم إلى لاو لا إله إلا لا لا إله إلا لاو لا إله إلا تخونا لا إله إلا لا لا إله إلا لا ngay am na solo lool waaye dafa am benn zikar boo xamante ne eh, dama bëgg nga def ko eh, muy zikaru Mamadou Laye Ndir bi muy woy réew mi li mu am ci ay ngeneel fii ci bàyyi laay la bàyyi ko yóbbu seen kër daw del si waat ñun ñu toog gëmu li maamu sunanu mooy tulu mu aaye tax nu am bi gërëm la ca limaamu laay rew mi li mu am ci ay gëneel fii ci baay laay la bàyyi ko bu seen kër daw del si waa yii ñun ñu toog gëmu limaamu laay laay wul ci leen bi limaamu lay lay bata may way limaamu lay ngir ga yaakaari ab ramoon te bés ba nuy jëw dama ragal yàlla yaakaar limaamu lay soo daan سوات باني مدل فرد يا سنا ويتل مؤايا دخلها من درم لجل مامور ويزنا ولو تيدك واوا ووتي بايلاي تساوبا وزارو بمبولي مستم ينام ne ma janlog Limaamu Laay man damay way Limaamu ga yaakaari am ramo keroog ba nuy jëm dama ragal Yàlla yaakaar Limaamu Laay soo daan wuy si leen ngir soo te baal matal faral ak sunna mooy tulu mu aaye dax nu am ni ngërëm la ca Limaamu Laay macha allah fi ma toog daal dafa mel ni dañ dema dañ jël euh, zikar boobu Iba euh, zikrulaay bi moom macha allah dañ lay ñaanal yàlla gën a daas baat bi wax dëgg yàlla foo toog rek dañ ñuy bëggal te xol yi day tooy xol yi day fees macha allah. yàlla yàlla gën la fi bàyyi nga gën a bëggal euh, ñi nga xam te ñoom ñoo ñu suivre sa dernier mot. waaw suñu dernier mot dañuy sant yàlla bu baax doole ci li ñu koy sant saa su ne di ñaanal comme ni ñu ko tàmbalee suñu xalifa yàlla bàyyil nu ko fi di ñaanal aussi suñu wayjur soxna ummi bintu soxna ummi ibnu bintu Seydina Mandione yàlla yàggal ko fi mu yàgg fi toon dëgg wér waaye itam di ñaanal Euh, Laayeen ak la sono si liggéey bu am solo bi ñuy def di leen ñaanal yàlla taxawu leen yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu gën a kawe lool ba nu koy si fépp ci àddina di la ñaanal aussi yow mi nga xam ne taxawee lii saa su di ñaanal maam mi nga xam ne aussi moom lañu ñu bokkal plateau bi di wax ne moom mi xanaa ñoom ñi bi ñuy toj tànte yi ñun ñu ngi raam di di jàng dox amaana ñoom ñu nekk si ba ñun ñu xaw a dëgër di jàngantu sikkar di leen dégg ni ñuy sikkare ba ñu màgg nekk seen wet ba tey ni nga xamante ne euh, kër tënk leen ak liggéey defe naa maam Rama ku ko xam xamee ka si zikru la mm. way juróom di sunu umpaañ boo jë itam ku ko ku xamoon tante sëñ Ablaay déggoon turam xam nga ne kooku moom du woon ku ndaw si tante yi ndax fu neew turam àgg na fa ndax si sikkar mm. moom mu mu màggaalee loolu ba ñun tamit ñu màgg fekke leen si ba tey jii liggéey tënk ko ba mu toog waaye ñun ñu new nekkaleen si terrain bi di ñaan yàlla yàggal ka fi yokk ko wéram ak suturam ci barke bàyyi Laye di ñaan yàlla yàlla may fekke ak jàmm ci li nga xamante ne moom la ñu dëgmal muy aaji boobi ñaan yàlla may ñu ñu fekke ko tal ko yàlla may ñu si ak wér waaye itam yàlla def si poos yëpp xaalis ba ñëpp mën a mën a def sa appel si ni mu waree ci barkeb Seydina Limaamu mi nga xamante ne moom moo woote woote bi di ñaan yàlla defal ñu jàmm waaxiru daawaana alhamdulilah macha allah Iba kàddu yi rafet na comme ni nga ko waxee ci maam Rama rek xam naa émission moom dañ ko koy jagleel après incha allah émission boo xam ne lay doon comme ni fi nga tëjee rek mooy yàlla yàlla def xéewal ba appel bi ñu appelé ko si jàmm boo si am dara gani mën a bég ñëpp mën a bég ci barke alquranu karim macha allah di leen jox dig daje ba beneen yoon waaxiru daawahum alhamdulilahi rabbil أيوة يا له أو يا مخفر الإنس والجن رسول الله إليكم